ɓe alamina enen fofoof ɗum tan wodan en heen sabu huunde ma allah rokka jeemo ko rokki fof noon yiyoto anndoto minen fof ne anndi ni hay goto wawadde ni sowona allah en laa ɗum sa sallam e l'islam jonno l'islam jeyi hoore mum jeyi aduna o fofof eko woni aduna heego fofof sama àll bi wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun maa uriida minhum min rizqin wa maa uriida an yut'imuun inna allaha huwa razzaaqu zul quwwatil matiin noon kay tabaaraka wa ta'aala wi innaa nahnu nazzalnaa zikra allah ko allah tumum allah ko allah e kala hunde alhamdulillahi rabbil alamin waɗani tan yettude allah sa sallam ɗum moƴƴi ndeeƴen ndeeƴen seeɗa ndeeƴen seeɗa ndeeƴen seeɗa omo moƴƴani e makko fof eno muuyiɗi eno waɗiɗi alhamdulillah rabbi enen fof eɗen ganndi ɗo ladde mere wonno ɗo ene wayi no nde hoɗota ko ni saka nde hoɗe tabaraka taala to anndi ko waɗi e ladde he omo anndi ɓe muuƴ adde honno ɓe ladde he o golliraɓe o gollinaɓe ko golliniɓe o ko gila ɗum waɗani hawa ko yonti o addiɓe holliɓe no ko sa wonno ko yeere jeenaba sabani yo temanto otini ceerno o jaɓɓi ɗum o yehi wen ngala haalde laamu ngu ha laamu ngu yokkiyamiroole o hoɗi ɗo sa he ko ladde nde wayno hawta hon sagale hoɗe allah noon tum no ko ni muuyi wadde nde waɗ nde nokku yimɓe keewani hen no feewi alhamdulillah haalde ko ko yettude allah ene am sallam wona haalde goɗɗum yimɓe no feewi wonnoɓe hemɓe kadi julɓe keewani hen no feewi kono nde on golle allah e muuyi allah ɗum tan yahata ɗum tan wonata ka addi gurdam addi e ko addi sabu ninal annabi sa sallam allah haali to haalde no feewi o wi kuntu kan zan lam uraf fa fa ahbabtu an uraf fa ahabtu an uraf ko andata kon ala woodaani fa halaktu kanko anndi to etti ko omo taga tago ko ina wona tago fata arraftu ileyhi fa bi yarafuni alhamdulillah rabbi fofoote e koye nder ɗum tan yaata heddole hikma makko e muye makko e golle makko andotako andotako sifa mum waylotako ñawotako ñawetake ñande fof <clears throat> o no muy feeñirde waɗi kulla yamin fof fi sha'ani alhamdulillah rabbi en jetti alah nam sa sallam ɗum ɗo ko arti joni sa ƴeewi joni ceerno haji makki en ɗo jinna e maɓɓe ɓe dendagal ko ɗo jooɗi e gornam he fof mawɓe ko jotnidnoɓe fof ko gotum wonno on goto noon ɗum woni kowone yaade guila en islam e alhaaliji haali woni e yaarude ni yiɗi yiɗi toon nela toon kay fewnata feewa ala rabbi alamin ñaagi allah yo allah ren en rena men moƴƴinal haala men fof addu e o fewna en fewne ɓesuji men waɗani heeri ɓe almu sahlinati allahu taala anu ko hoddiri emen eɗen mbaɗa kone o walla en mban eno e ko ɓuri eno cikkiten ma fewru ni waɗɗen e ko ɓuri noon ɗum wawi ma ande ma hattani nane waɗima alhamdulilah ala kulli en beltima en jetti allah en jogii allah jorto moƴƴo moƴƴo moƴƴo jorto moƴƴo ngo ina jogɗi fuɗɗi kono ala alaaɓe sabu allah ala fuɗɗi ala alaaɓe en jogii jorto moƴƴo no fewi to allah en jogii fuɗɗi kono ala to haaɓe alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil yo allah jaaɓen dowuji ɗi alhamdulillah rabbil yo allah jaaɓen dowuji ɗi alhamdulillah rabbil yo allah jaaɓen dowji ɗi allahumma salli ala sayyidina sallim mbeeƴen seeɗa gonga ken weltiɓe no feewi kono noon seeɗa eh, ceerno li mu fi doon wax léegi ci tënk rek xaw ndax naa mën a wax la mu waxoon yëpp waaye dinaa ko dinaa ko góorgóorlu ndax dinaa ko mën a tënk nee na alhamdulilahi rabbil alamina alhamdulilahi rabbil alamina alhamdulilahi rabbil alamina nee na cant yàlla googu ñun loolu rekk moo ñu ñeel naka fekkonte ne lii yépp jëfu yàlla la ak nammeelu yàlla nee na yàlla nag su nammee dara jëf ko nit ñi dañ ci dañ koy gis teg ci seen bët teg ci seen loxo moo tax lii ni mbir mi mel nii sant yàlla la nee na su nit ki xelam deme ci bërëb bii ñu nekk fii ci daaka bi ak ak Madina Gunaas àll neen la woon àll woo xam ne kenn xel xalaatul sax nit dina ci dëkk rawatina nag ñëw ci dëkk waaye fekk moom yàlla tabaraka wa taala yàlla moom xam na ca moom la mu def ci biir àll bu yi la mu ci def ci mbóot ak ci ay secret ak ci ay yiw ak ci ay mbaax moom yàlla xam na ko waaye tam xam na tam jaamam yi nga xam ne ñoom la nam mu indi leen dëkkal leen fii bu boobaa jëfloo leen li mu namm nañ fi jëf jëfloo leen tam li nga xam ne loolu la leen digal nañ fi jëf yàlla moom ca moom xam na loolu waaye nag mu defal ko àpp defal ko ndogal defal ko waxtu bi waxtu bi jotee yàlla indi fi ñoom ceerno cheikh alxaaj muhammad said radiallahu taala anhu ci jamono boobu ki nga xam ne moo nekkoon chef de canton béréb bi moo di Yoro Jaynaba Saabali yàlla dogal Ceerno ñëw mu mu mu mu dalal Ceerno tatagal ko dëkkal ko ci béréb bi dem Vélingara ñaan autorité yi ba ñu jox ko autorisation mu dëkk ci béréb bi ci jamono boobu nee na béréb bi sax gox gi ay nit bëriwuñ fi ñi néew ñi fi nekk tam ñi ci nekk jullit bariwuñu waaye alhamdulilahi rabbil alamina naka fekkonte ne moom yàlla lii la fi namoon moo tax mu def ko ba mu mel nii mu mel tey nee na loolu nag yàlla mi ngi ko defee ngir teral lislaam nee na teraangay lislaam la nee na naka fekkonte ne lislaam moo moom boppam moo moom adduna bi yépp moo moom lépp naka fekkoon ne lislaam moo di yàlla yàlla muy lislaam yàlla nag moo moom lépp moo moom mbiram yépp lu nekk ci nammeelam lay nekk nee na yàlla wax na ne ci biir alquran ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yacbuduuni maa uridu minhum min rizqin wa maa uridu an yutcimuuni inna allaha huwa arrazaaqu dul quwati almatin nee na man yàlla nit ñi ak jinne yi dara taxul ma sàkk lu dul ñi jaamu ma man yàlla nammuma ci ñoom wërsëg nammuma nañ ma lekkal man yàlla maay kii wërsëkale maay boroom kàttan boo xam ne bu dëgër la wax ci beneen aaya tam ne inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafiduuna man yàlla giiñ naa te dëgër te te dëgëral naa ne man maa wàcce alquran maa maa wàcc maa indi lislaam maa wàcce alquran maa sàkk tam samay jam yoo xam ne dinañ nekk ci biir lislaam bi ak ci biir alquran bi man yàlla ni ma ko bëggee ak ni ma ko digalee te giiñ naa tam ñoom ñëpp man maa leen dajale wattu leen sàmm leen nee na yàlla tam wax na ci ci beneen xadis alqudsi mu ne man yàlla kuntu kanzan lam uraf man yàlla nekkoon naa balaa may sàkk dara fekk dara amul man yàlla ma nekkoon trésor boo xam ne lam uraf kenn xamuma waaye nag fa ahbabtu an urafa ma bëgg ñi xam ma mu ne xoolal loolu fa ahbabtu an urafa moom yàlla bëgg na ñi xam ko fa xalaqtu xalqan ma sàkk mbindeef nee na xoolal bi muy sàkk mbindeef moom yàlla moo xam fan la jëlee la mu sàkkee mbindeef comme que dara nekku fi moom kese la mu bëgg ñi xam ko ngir bëgg ñi xam ko loolu moo tax mu sàkk mbindeef moo tax bi mu sàkkee mbindeef bi fataaraftu ilayhim ma xam-xam lu jëm ci ñoom bi maanaa ma def nu ñu ma xamee fa bi arafu nii ci man yàlla ci man nañ ma xamee moo tax nee na loolu lu ñuy sante yàlla la bu baax a baax a baax a baax a baax yëpp nag teraangay lislaam na nee na yàlla nag moom moo xam nammeelam moom moo xam jëfam nee na ma Macky Sall mi nga xam ne moo fi toog nekk président de la république moom nag ak gouvernement waaw ak mbooloo mi fu àndal yàlla dogal na balaa yàlla di leen dénk lii ñoom ci njabootu dental bi nañu bokk loolu yàlla moo ko def yàlla di def loolu ba yàlla tey teg leen fii mu leen teg yàlla defal ko nii mu ko defee nee na loolu nammeelu yàlla la ak jëfam ñu ci sant yàlla bu baax a baax a baax ngi ñaan yàlla nag bépp yéene ak bépp xalaat ak bépp mébét boo xam ne am nañ ko ci ci réew mi ak liggéey yi nga xam ne bëgg nañ ko ci réew mi ñoom ci seen wàllu xel ak ci seen wàllu xalaat ni ñu ko yaakaaree ak ni ñu ko bëggee ak ni ñu ko jëfee yàlla na leen ci yàlla defal lu raw loolu lu ëpp loolu lu kawe seen njortu lu kawe seen xam-xam naka fekkonte ne yàlla yore na lépp te am na lépp te mën na lépp mu ngi ñaan yàlla yàlla na leen ko yàlla defal ala kulli xaalin Ceerno mi ngi leen xamal daal kontaan na bu baax a baax a baax a baax bëgg na tam bu baax a baax a baax te ñaan na yàlla tam bu baax a baax a baax te am na nag yaakaar ci yàlla bu baax a baax a baax yaakaar boo xam ne am na fu mu tàmbale waaye amul fu mu yem naka fekkonte ne yàlla moom mën na lu nekk te attan na lu nekk te te te mën na def lu nekk nee na am nañ yaakaar ci yàlla bu baax a baax a baax ngi ñaan yàlla nag yaakaar jooju yàlla na ko yàlla mokk mottali yàlla na ko yàlla yeggali